mbokk yi seen jotaay kàgguma ñi rek dellu si waat tey fii ci diwaanu euh, Castor ah bu ñu ko waxee Castor en face euh, derrière clinique Croix tey ñu fekk si fii le PDG Abdourahmane Kébé PDG euh, bi nga xamante ni saa su ne day liggéey lépp loo xamante rek ci wàllum bio incha allah daañu ci gën a yaatal baraka bio 100 pour cent naturel si Abdourahmane balaa ñuy sore ñu ngi lay wax salaamaaleykum. maaleykum salaam Mouhamadou Lamine ñu ngi jaar. baa ngi si jàmm. ñu ngi sant bu baax rek alhamdulilah. waaw man Abdourahmane Kébé la. maay PDG Baraka Bio mu nekk benn cabinet boo xam ne dañuy jaay ay produits. yu bio yu naturel. Euh, yu ñuy gën a jëfandikoo nag mooy yi nga xam dañ koy lekk mooy comme gàncax yi ñuy lekk. Mhm. plante yi nga xam dañ koy jëfandikoo waa ci yooyu la ñuy kii. am na ci nag ñuy jógee fii am na ñoo xam dañ koy tamit importé jële ko ci yeneen réew. taarkal Abdourahmane Kébé mu mel ni tey jotaay bi dafa nar am solo lool ndax ñu bëri bu ñu waxee bio. Euh, lépp c'est naturel ndax lu naturel la mais ñu ci bari bëri tey dem nañ ba benn jamono tàmbal lañ nañ ko xam ne xam ne bio sax moo gën a cher te la nga xamante ni lu bokk la bio euh, tax ndax lu ma bëgg a foofu li ci bëri bëri mooy askan bi dañu demoon ba xaw koo ragal ngir gën a mën a dalal seen xel en tant que PDG euh, looy mën a wax foofu waaw xam nga rek loo gis rek lu ne le négatif positif day am ci lépp mhm. bu bu bu déet amul waaw du am donc euh, am na ñoo xamante ni arrangé wu leen. Mhm. am na ñoo xamante ni arrangé wu leen ndax mbirum faj moom ñu ci dafa am médecine médecine moderne am médecine traditionnelle. Mhm. mais bio moom mu ngi tàmbalee ci production yi maanaam garab gi fu muy sax. Mhm. fi muy sax nu muy sellee nuñ koy entraîner ba nuñ koy wutee ba nuñ koy produire pour nit ñi mën di ko jëfandikoo dafa am. waaw am na nag garab yoo xamante ni moom amul effet secondaire nit ko du ko allergie du sonal ci nit ki dara dara ñun ci yooyu rek la ñuy jëfandikoo. am na garab yoo xam nag moom mën na lor nit comme mën na defar nit mais am na ci yoo xamante ni moom. Euh, du amul benn benn benn inconvénient bu ma mën a indil ci doomu aadama bi. tabarkalla tey day mel mhm. euh, mu mel ni jotaay bi dafa nar a am solo lool tey muy euh, waa Baraka bio 100 pour cent naturel bi nga xamante ni ñoom la ñuy fekk si fii tey fii ci Castor dernier derrière clinique Croix Bleue Abdourahmane mu mel ni dañuy jëm directement ci benn garab goo xamante ni sénégalais askan wi wala addina bi sax ñu ngi koy ñu ngi koy waxtaanee muy kun fa yëkku yakun bio euh, kun fa yakun Abdourahmane muy tur boo xam ne balaa ñuy sori sax ci bio bi ak njariñam lu waral kun fa yakun ndax tur boobu ah, dañu ne di suñu borom rek mooy yelloo bu ne kun mu nekk waaw waaw kun fa yakun moom euh, kun mooy nekkal fa yakun mooy kon mu nekk mhm. waaw kun fa yakun euh, yàlla moo ko moom waaw mais yàlla mi nekkal mbir yi moo mën a jël ay ay mbóotam barkeem def ko ci garab moo tax des fois nga gis ñu naan la tey day mel ne nebadaay xamoo nebadaay mooy neevadaay mm-hmm. ku dul dee xamoo mooy neevadaay mooy ku dul dee mm-hmm. day mel ni garab yooyu mm-hmm. pourtant garab la mais am na tur boo xamante ni da koy am ci njariñ gi muy produit moo tax njariñ gi mu mën def sama moo tax waaw tur la jóge d'accord mais mais lan moo tax nga jékki-jékki rek jël tur woowu bëgg hmm? nañ xam tamit mbóot mi mu làmboo lan la ba tax nga ne kun fa yëkkoon waaw garab gi lépp lay faj mais tur wu diis la de sëñ bi yàlla xam na ni gis nga moo nekk nii gis nga garab gii waaw. Euh, man bu nit ñëwee si yow. par exemple nga ñëw ne da am problème suukar suukar day yéeg. waaw dama naan la jëlal benn nga dem. nga ne jëlal benn nga dem. jëlal benn nga dem. kooku garanti la wala lan la doo ñëw doo ñëw maan la ay bi jëndal ay carte dama naan la jëlal benn nga dem yow yaay ñëwaat man ma la wax ñëwal. mais loolu xanaa c'est da ko garanti wóolu garab gee tax. ma ni la billaahi dama naan la jëlal nga dem yow yaay ñëwaat man kañ li ma lay wax. xamoo xamoo mën nga ñëw maa la traitement indi bii somme indi déer man dama naan la demal nga essayé nga ñëwaat yow yaay ñëwal sa bopp xale mun na ko naan mag mun na ko naan ñëpp ko mën a naan macha day saafara nit bu amee lu ko jaaxal mu te xamul lan la yàlla xam na ne bu ko jëlee mu saafara ko. moom kun fay kun. waaw infusion ngañ koy def moog bouteille bi ñooy ànd. voilà man dama gis bouteille boobu jaaxal na ma parce que dama gis euh, kun fay kun waaye tam ma gis bouteille bi ba nga xamante ni euh, daanaka li mu làmboo lan la moom bouteille bi tam. waaw composition la wala lan la dañ koy composé. kii moom mbootu arxuraan la. mbóot mais li tax mu jaune zafaraan lañ ko bindee moo tax. déjà yaa ngi ñëw de yaa ngi yaa ngi doon laqatu nag. ci wàllu woowu mais damaa ngi ñëw yow. tuuti waaw ah, mhm. la lépp nekk. Mhm. am na ci nag ay euh, ay shifa yi dafa am. yoo xamante ne dañuy faj lépp ci ne daal. Mhm. loolu la mais ay moom la. lii kon ñoom ñaar daal ñooy ànd. waaw ñoom ñaar ñooy ànd. noonu lay demee waaw. Euh, solo léegi nee nga garab gi daanaka wóolu nga ko ki nga xamante ne ak gat loo xamul sax jàngoro bi mu doon moom moom day ñëw traité ko. kii sëñ bi laa la wax garab bi àdduna sépp danañ ko dégg. maa la ko wax laa la ko waxee. waaw bindal nga teg yàlla xam na ko. kun fayakun lu wér la. mais luñ ci mën a baaxee rek yenn maladie yoo xam ne mu ngi ki euh, ku am problème mu cœur problème mu foie. maanaam sa foie problème foie. buy problème foie. waaw euh, dafay nettoyer ay rein dafay raxas deret mhm. baax na ci ku amee ay ballonnement. baax na ci ku dul lekk baax na ci fatiguement général baax na ku amee problème mu tension muy hypotension muy tension bu yëg buy wàcc da koy da koy régulariser ku am problème mu suukar boo koy jël tamit noonu dafay moom sëñ bi kii daal euh, xam nga luñ naan waaw euh, kenn du jiitu paaka ci mbar waaw li euh, mënoo toog naan day def nangam day def nangam li li am solo mooy nit ñi nañ ko jël ñu xool tawarkal cinq mille francs lay jar junni junni lay jar ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp mais jël ku ko bëgg na ko jël mu dem mu xool mu ñëwaat. après balaa ngay dem dinaa la envoyé yenn témoignage yu may woo di ma kii nga déglu nga xool. di la remercier waaw tabarkàlla mbokk yi muy euh, gis ngeen tey euh, tey ak le PDG. Abdourahmane nag suñu maam. Mhm. ci euh, du lu ñu for nii. waaye sama maam moo moo moo ko daan joxe. ah d' accord ndono la. ndono la waaw d' accord loolu foofu laa bëggoon jëm ndax. Eh, dama la bëggoon laajte ndax mbir mi yaa ko créé ou bien tam eh, foo ko jàngee. du lu ma kon ndono la ndono la waaw. kay macha allah depuis combien depuis combien d'années yaa ngi moom garab gi. ndax ñu bëri yow da nga mel ni yow média bi nangu woo ci woon génne. lu ci bare bare loolu jaaxaloon nañu bari nag. c'est que nag garab gi bañ ko dalee joxe léegi daanaka bari na ay at yàgg na lool sax. mais mus nekk lu ma mus a médiatiser d'habitude suñu mbokk yeeg ñi ma xam ak yooyu mhm. temps yi sax laa commencé di ko kii nii mais yàgg na lool mbirum cosaan la daal macha allah ndax euh, booy xool euh, ñi ko daan jël si dañ ko daan rang mhm. ñi ko daan jël si waaw kër ga dañ ko daan rang am na solo waaw d'accord traitement bi bu fekkee dooma aadama bi moom da nga koy limal ci ay traitement yi muy jël ou bien que de bu ko neexee sa dépend day jël rek boo ñëwee waaw man man personnellement ak sama njaboot waaw su ma xëyee dama koy naan su ma añee dama ciy naan su suma reere dama ciy naan parfois sax ma def ko sama ndox naan xamoo loolu garab bu am effet secondaire wala garab boo xam ne mën na am excès ba sonal la xamoo boo ko defoon kon dee naa bu yàgg loolu moo ci ne ma limal la rek lenn base bi nebedaay ci la bokk moom ci la bokk nebedaay rek nebedaay rek mën na faj 313 jàngo ci yaramu nit moom ngi ci nebedaay li ma lay wax boo bëggul boo bëggee demal internet nga tàppe nga xool boo paree na nga composé ko ak alxuraan gi nga xam day ànd ak moom. waaw ak yu mu war a àndal. waa kay Abdourahmane mu mel ni foofu sax daanaka euh, waxtu waa ngi dem euh, fi ma jëm directement rek muy euh, beneen wàll muy saar bu ma neex muy suratul ixlaas mu mel ni itam lu ma bëgg la waaye tam askan bi tam bëgg ci tuuti njariñ nga xam ne war nga leen ci leeral. Lamine nar ngay di problème de. non non parce que Abdourahmane que làqu bi laay bañ mu làqu bi xam nga làqatu bi laay bañ fu mu toll nii. des années ma di la topp ci wàll wi. doo nangoo leeral mais tey nag dem nañ ba benn jamono tàmbale nga ndax am na loo xam ne tam Abdourahmane askan bi ñoo ko soxla moment bi ndax euh, ñu ci bari wératunu euh, néew na nga gis koo xamante ne si bopp ba tànk mu du la wax aw ma lu may jàmbat mhm. c'est difficile moment bi euh, Abdourahmane dama bëggoon tuuti rek nga baaxee ñu ci surtout ixlaas bi nga xamante surtout nga baaxe ko askan bi ak njëriñam waaw surtout ixlaas moom dinaa la ci kii du ma sëriñ nag di dégg nga. ah déet <laughs> ah, baax na askan bi ñooy jugé dañuy waxtaan dañuy euh, waxtaan jàng nañu alxuraan ndax daara la ñu yaroo donc tamit gëstu nañu am na lu ñu ci xam daal. Mhm. léegi dinañ la ci defal tuuti waxtaan rek. Mhm. léegi wax la njariñ ci ne. Mhm. wax la lu bari lu mu mën soratu ixlaas mooy xul huwallaahu ahad allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakul lahu kufuwan daanaka ñëpp mën nañ ko. d'accord. Ah, daanaka mën nañ ko. Mhm. xaaral ma am lu ma la ci wan. bismillah waaw. Mouhamadou Lamine waaw li ma doon laaj ci suratul Ikhlas ñu defal la tuuti benn kii rek ma baaxe ko mbokk yi ci weeru koor bi. surat bi surat bu am solo la yàlla kese lay wax. Mhm. booy xool ñeenti aay la. suratul Ikhlas dafa nekk fukki baat ak juróom. Mhm. nekk 47 lettres boo jëlee 4 plus 15. plus 47 daf lay jox 66 yaakaar naa noonu la mooy Allahu rek boo jëlee surtout Ixlaas boo xoolee daf ci am turu yàlla yu ci nekk ndax boo jëlee huwa turu yàlla la moo jàpp 11 Allahu 66 mooy mooy Allahu mooy 66 boo jëlee ahad 13 la bii di 11 la di 66 di 13 boo ko boolee dafa lay jox 90. tur yàlla bu ñuy wax mulku mhm. moo la koy jox d'accord waaw ba tey suratu ixlaas euh, man li ma ci gën a neex mooy mhm. boo ko jàngee ñetti yoon mel nga ni ko jàng kaamil ok kaamil a doo dégg ñu koy wax mhm. mais secret bi fi la nekk lam yalit la lam yalit baat bi trente plus quarante plus dix plus plus 4. 114 la alxuraan 114 saar la. Mhm. léegi ni koy def pour mën a am alxuraan kaamil bi mooy boo jàngee foofu laa wax parce lam yelit. Mhm. da nga koy wax 4 fois da nga koy wax 4 fois. Mhm. nga eggale saar bi. nga lam yelit nga wax lam yelit 10 fois. nga eggale saar bi. nga waxaat xuloo laahu ahad allahu lam yelit nga wax lam yelit 100 fois. door a eggale saar bi wala mu yula doolam yëkkaloo ko ko boo ko defee mhm. mooy am nga kaamil bi système boobu lañ ciy jàngee ñu baaxee ko mbokk yi ci weeru koor bi ku koy def ku bëgg a wàccee kaamil rek da ngay jàng loolu la trois fois mais boo eggee ci lam yalit waaw baat bii mhm. da koy wax quatre fois mhm. eggaat si wax ko euh, dix fois eggaat si wax ko cent fois mais boo ko ba ko rek da ngay eggale wat saar bi waaw loolu mooy lu leen doon baaxee tawa tawarkal ixlaas waaw macha allah jërëjëf sëñ Abdourahmane euh, muy suratu ixlaas euh, mu baaxee ko li nga xamante mbokku euh, téléspectateurs yi ngi bàyyi xel sëñ Abdourahmane mel ni sax daanañ am na lu ma la ci may sax lu gën a am solo mhm. boo xoolee suratu ixlaas poids mystique am 972 la mhm. mooy 972 lépp mhm. boo ko calculé da lay jox 972 boo ko multiplié par 2 daf lay jox 1944. 1944 mhm. lay jox. 1944 mhm. boo ko diviser par 8. Mhm. daf lay jox 243. mooy jamra moom la ñuy wax jamra. lii 3 la lii 40 lii 200 moom la ñuy wax jamra moo jàpp tur yàlla bu ñuy wax jaamihu. ak latif. boo jëlee lii mooy li jaamay la tam mooy 243 boo ko multiplier par 8 xamoo lii 4 lettres la. Mhm. lii 4 lettres muy 8 boo jëlee poids mystique am 243 nga multiplier par 8 daf lay jox daf lay jox 1944. Mhm. comprendre ok. Mhm. boo jëlee lii poids mystique suratu Ixlaas nga multiplier ko par ñaari ñaari baat yi daf lay jox lii lay jox 1944. d'accord liñ ci mën a génnee fu mu ne lii. ki mën nañ toog lu mat ay weer di ci waxtaan bis bu set. waaw di ci décortiquer. di waaw di ci la waa kay sëñ Abdourahmane euh, yaakaar naa am na solo tableau bi nga xam ne indil nga ko ci secret Ikhlas kon ni ñu la ko ñaanee woon nga defal ñu ko li ni mel. Mm-hmm. daañu ci dellu si waat mu mel ni waxtu bi dab nañu euh, te ku la gis ne xam ne dafa mel ni tam ni ma ko wax mbóot boobu làqatu boob dañ koy bàyyi ndax da nga yëngu ci lasraar. Euh, yënguma du ma sëriñ bàyyi ma non yëngu ci lasraar. yënguma ci lasraar de. Abdourahmane su may jëm tuuti rek muy actualité lay laaj. waaw ñu ñu bëri dañu jàpp ne am na ñoo xam ne gëm nañ ko waaye am na ñoo xam ne ba léegi gëmuñu ko Euh, mu mel ni ñaari diggante ñoo ngi ñëw diggante euh, Balla gay 2 ak ki nga xam ne moo di Bombardier naam sax euh, dooy dooy ñaan ci wàllu mel ni xamewuñ la ko waaye tam dañ lay laaj en tant que ci wàllu mystique noo gisee ñaari taxawaay ak ci wàllu mystique ndax mystique tam léeg-léeg nga dégg ñoo ne la jàpp nañ ko kii ne jàpp ñu ma ci mystique di ko bañ loolu lu am la sañ bi yow mystique dafa yàgg mystique moo sax jiitu fii diina islam ci saayir mystique moo jiitu alxuraan ci saayir mm-hmm. maanaam lu yàgg la xërëm ñëpp xam nañ ko mystique nag dafa bari façon foo pays boo dem ak réalité ak nuñ koy defee da lu am la nit mën nañ ko jàpp ci mystique nit mën nañ ko liggéey nit mën nañ ko lu ne lu ne am na waaw lu loolu yëpp lu am la moom loolu moom ku koy naatable sax moom lu am la mhm. bu dee Balla Gaye moom ak Bombardier ñoom ñaar euh, dañu am gàllaaj lool am nañ taxawaay dama mos a dégg Moussa ñi ngi doon wax naan Bombardier ku ko bëgg daan bu ko teg si mystique da ngay liggéey lu koy daan oh. waaw ah, kon kooku moom <laughs> yaakaar naa man damay feral di suivre lamb kon yaakaar naa kon am na ginnaaw te Moussa ñi ngi expert la ci ci wàllu boobu Balla Gaye tam ñëpp xam nañ tam ñu nekk si ginnaaw mhm. waaw donc loolu moom amul sax lu ñuy naatable ñoom daal yaakaar naa daal ku mën sa morom duma la rek rek <laughs> waaw tarkal Abdourahmane tàggatoo waaw xanaa rek ñu wax mbokk yi ne ñu ngi leen di jaajëfal di leen siyaar bu di leen wax ne rek euh, lu fi jub dëng rek mhm. euh, ñun la lu fi jub nag yàlla suñu borom la ndax mooy jubal fii ne leen daal garab gi moom mu ngi fii képp ko soxla rek bu wootee ci numéro yi bu ñëwee incha allah dinañ ko ko baaxe macha allah tabarkalla mbokk yi muy Abdourahmane Kébé euh, PDG euh, ki nga xamante ne rek muy bio euh, bi nga xamante ne baraka bio 100 pour cent naturel ñu ñu bëri xam ko tam ràññee woon ko waaye nag ni ma ko waxee day tàmbalee fësal mbir mi nag di ko tool médiatiser ndax dawoon naa ci ba sonn ngir mu taxaw ci li nu mel waaye nag moom écran bi moom bëgg ci woon dara waaye nag ndonok maam moom day toll foo xam ne foofu mu génne ko mu ngi fii ci Castor derrière clinique Croix Bleue numéro téléphone yaa bi bi euh, yéen ñi ko yittewoo rek mën ngeen ko daal di woo ci 77 euh, 454 euh, 17 90 mooy numéro WhatsApp bi wala beneen numéro bi 76. 535 81 36 mbokk yi kun fa yëkkun bi lu doy doy la ndax xëy na bu ñu wax dañuy jàpp ni euh, dañuy jéem a yokk mbir yi wala di ko yaatal waaye bu leen ko jigéel xam ne rek dëgg rek ay dëgg daan naa la daan naa la wóorul ku daan rek da ngay féete kaw euh, sëñ Abdourahmane ñu ngi lay sant bu baax PDG di nuyu mboolem équipe technique bu Jamm ji info éclairage caméra montage c'est dans waaye tamit ci wàllu réalisation bi itam di ci santaat bu baax euh, di ci sant bu baax soxna ji Diop ci wàllu jàmm